kañ gis ngeen yonant bi rek moo fi nekk xaw ma am na ko fi dëkk jolof aafe jolof xam ngeen xam ngeen aafe jolof am na kuñ fa doon wax baaba caane ñang ñépp dof lañ ko jàppe woon tournée bu ma fa defoon jamono bi yàgg na quatre vingt dix su ma juumul non non waaw côté quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-sept quatre vingt dix àndoon nag rahmatullah alayhi Omar Dia professeur la woon fii ci ENA maag moo ma àndoon ak yeneen i kilifa ma def fa tournée Baba Thiané nitu yàlla la woon boo xam ne daanaka jolof dañ ko réere woon ndax yamuy wax moom alxuraan saaru lëmm da koy tënk comme buy firi bu ne inna aataynaaka al kawsara mu ne mooy doxi ni gëlëm jeex na inna aataynaaka al kawsara ba mu jeex nee na mooy doxi ni gëlëm jàll na tabbat yadaa abi lahabin mooy làmme ñu xaj jàll na noonu lay fire alxuraan moom noonu la doon firee alquran mu ne yéen ñii dem màkk dem màkk mooy juróom-ñaari xabbaan xabbaan mooy nag wu mag wu ba matal mu ne mooy juróom-ñaari xabbaan noonu lay firee moom muy firi faatiya ne alhamdulillahi fa la de mu ne alhamdulillahi mooy jigéen ju boot doom mës dégg loolu daal dina yàlla ci sa tuddoo bii lay sëpp di wax ak man ma di ko dégg ñépp ne dafa dof néegam daaw ko tëj ma de ma ne leen da ngeen di jéem a essayer xam li muy wax balaa ngeen naan dafa da ngeen di jéem a essayer xam li muy wax mu ne ma shérif dimbale ci gaa yi man la leen li tax mu ne inna aataynaaka al kawsara mooy dox yi ni gëlëm mu ne ah ma ne ko gëlëm mën na dox ay weer du mar te kaw sara ku ca naan dootoo maar jeex na gëlëm mën na dox ay weer du naan kaw sara ku ca naan dootoo maar te gëlëm boo ko rendi woon tey lum tàng tàng tàng biir bi benn mbaq mi am na ndox mu sedd guy bu fa ne boo xam ne mën nga ko jël naan wallaahi li may wax du caaxaan beneen bi ci lañ sébrit mi nekk boobu nga xam ne moo def ndox mi te day sedd guy bu demee ay weer naanut daf koy comme duñ yi comme xar muy duñ yi daf koy yéegal mu yéeg mu tooyal put gi bàyyiwaat ko da koy yéegal tooyal put gi comme ni xar di duñee xam nga xar mën na tëdd fale di yéey nga foog ne day lekk fekk lam yéeyoon lay duññi dañ koy génnee nii di ko yéey xam nga xar foo foo ko gis mu ngi yéey bu dee xoox yu mu wan sax da koy génnee di koy di koy ba mokk bu dee xooxi màngo boo xëyee fekk gis mu yàbbi ko gëlëm moo tax yàlla junj ko ci alxuraan waaw may ma rek may ma bu mu day bañ ñel laa ko waaw alxuraan kenn du ko dagg heure bi afala yanzuruna ilal ibili kayfa xuliqat lu tax yàlla teg ci wa ila samaa'i kayfa rufi'at wa ila al ardi kayfa suti'at fa zakir innama anta muzakkir waaye nag lasta alayhim bi musaytir xanaa ba mu des illa man tawalla wa kafar kooku bàyyi koog man fa yu'adhibu llahu azaban akbar lu tax inna ilayna iyaabahum summa inna alayna xisaabahum kañ gis nga alquran xam nga lu tax mu ne tabbat yadaa mooy ñu xaj yonent bi moo wax ne xaj bu laalee sa ndab bu walee sa ndox na ko raxas juróom-ñaari yoon juróom yoon juróom-ñaareel ba nga boole ci suuf dafa am microbe yu nekk ci làmmiñu xaj boo xam ne gaawul dëñ foog nga raxas ko juróom-benn yoon juróom-ñaareel yoon ba nga boole ci suuf mu door a dëñ noonu mu jafee dindi moo tax mu ne làmmeñu xaj mooy tabat ya daa bii laxam soo ko bëggoon firi tey bu la neexee nga ne làmmeñu xaj mooy si ngoom boo ko yàbbee kum taq balaa mu koo dindi mu xam ne yàlla buural lu tax mu ne tawaaf kaaba ga mooy juróom-ñaari xabban xam nga juróom-ñaari tawaaf ngay def mook doole juróom-ñaari xabban yoo saraxe ñoo yem xam nga li tax mu ne alhamdulilahi mooy doom juboot jigéen juboot doom mooy maam aadama ak maam hawa ñoom la yàlla njëkk a bind te mboolem li yàlla bind mu ngi ci alhamdulilah moo tax ma ne la Maodo rekk a tontu ba yàlla ne arastu bi rabbikum moom mi ne alhamdulilah zil ijaadi wal qidam jeex na moo tax xaqiqatul muhammadiya nuurun bu leen woy nuurun axaata bihi Maodo rek a ko turwe nee na xaqiqa ba fa mu nekk ay leer a ko wër mooy juróom-ñaan fukki junniy kiiraayu leer moo dox diggante xaqiqa ba ak yónnant yi waxuma ñun de yónnant yi yónnant yi nag di jël di ñu jox moo tax faw nga am kilifa sëñ bi léegi nag mu des nga bëgg a naan ca xaqiqa ba kooku nag kilifa la cay jottali kilifa ga la cay jottali nag bu jaarul ci yónnant bi du dem jóob saal kay xam nga lu tax bu jaarul ci yónnant bi du dem yónnant bi dafa am ay mbubb yow nag bi nga ci njëkk a ittewoo pour mos ci xaqiqa bi ay tolluwaay la benn nga njëkk a yem ci làmmiñam ndax ko amul làmmiñ doo wax leer gi yem ci làmmiñam boo ca paree dem ci xol bi gis nga 92 bi composé boo de boo déchiffré yonent bi xam nga 92 yi 92 yooyu la yonent bi am diggante mu ñëw xol ba loxo yi tànk yi bët yi làmmiñ bi bakkan bi ak nafsu nag moom kiiraay bi njëkk mooy ak nafsu moo tax boo amee kilifa foofu la lay njëkk a branché boo génnee ci nafs bi nag ngay door a dem ci xol bi moo tax yonent bi mooy jëmmi xaqiqa bi représenté xaqiqa ba fii moo tax ku demul ci yonent bi doo ku jaarul ci yonent bi doo dem moo tax yàlla ni wa atiu llah wa atiu rasul sirru wujudihi kay kon rasulullahi moom moomu nga xam ne nag moom dong moom moo am affaire ak yàlla xoolal li ma la njëkk a wax te yàlla wax ne wa xalaqa min al maai kulla shay'in moo tax mu bind asamaan ci ndox asamaan fi nga koy gis ci ndox la ko yàlla bind mooy li ma la njëkk a wax ci njëlbeen bi bu xoolee xaqiqa bi bind ko ba noppi xaqiqa bi dafa am kersa ñaq ñaq boobu moo def géej duusi géej yooyu doon dóor ci la yàlla bind asamaan bi mu demee ba nekk pat ci la yàlla bind suuf bu yàlla njëkkoon bind suuf ñi saay-saay dañ naan yàlla ci suuf la taxaw pour bind asamaan waaye asamaan la bind njëkk a bind moo tax fu muy waxee dafa naan xalaqa samaawaati wal arda ki njëkk a bind asamaan door bind suuf kooku xam nga ne soxlawul fu taxaw pour bind te xaqiqa ba la muy rëy rëy rëy bi nee na biñ ko ci laajee dafa ne boo jëloon suufu benn dank ko sànni ko ci suufu ñaareel day mel ni sa jaaro bii boo jël ba ci foore bi nga sànni ko nee na suufu ñaareel ñetteel ba juróom-ñaar mu ne nga yéeg boo boolee suufi juróom-ñaar yooyu yépp sànni ko ci asamaanu benn mu réer comme jaaro boo sànni ci foore nga boole suufu juróom asamaan yi juróom-ñaar sànni ko ci kursi mu réer comme jaaro boo sànni ci àll mu ne nga boole juróom-ñaari asamaan yi juróom-ñaari suuf yi kursi yu sànni ko ca arash mu réer li yàlla bind arash ci gën a réer te yonent bi nee na xaqiqa bi moo ëpp arash xaqiqa boobu kenn yeggu fa ku dul rasulullah moo tax nga gis képp ku wedd yonent bi ak képp ku gëm yonent bi nuurul nubuwati moom la la yàlla di pikiir pour nga mën a gëm yonent gëm yàlla soo amul nuurul nubuwati doo gëm yàlla moo tax yonent bi moo dul caaxaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo dul caaxaan yi yàlla dajale ci moom dafa bari moo tax bismillahi rahmaani rahim mooy jëmmi xaqiqatul muhammadiya wax naa la léegi ne boo nee bismillahi lu tax faatiha njëkk ci kaamil bi te njëkku la wàcc foofu la mbir mi nekk lu tax faatiha njëkk ci kaamil bi balaa ngaa jàng dara faatiha ngay jëkk jàng te njëkku la wàcc beneen aaya bu wàcc jibril moo naan bi sa borom nee na roof ko fii lu tax faatiha mooy jëmmi xaqiqatul muhammadiya moo tax dañ bëgg nga naan ci moo tax faw nga jàng faatiha soo bëggee yéeg ci yàlla nag jaaree ko ci yonent bi jaaree ko ci faatiha da ngay juutal faatiha waxuma nga jàng ko ci julli juutal ko de déedéet gis nga tomb baa bi ci basmala la dangay juutal faatiha pour mën a yegg ci yàlla lu mujj ci faatiha ghayril maghdubi alayhim alayhim wala daalina moo mujj ci faatiha dangay fexe bi bañ a réer da ngay fexe ba bañ a réer xëyril maxduubi du loo xam ne nit mën na ko sànjaafu léegi mu jeex waaw léegi yéegal arrahim demal arrahman fexeel ba am mën yërmande ci ñépp rabbi rabbil alamina yëgal ne yàllaay sa borom rek na nga yëg ne yàlla rek mooy sa borom soo yéegee yépp boo ko incarné ba pare nag door di ne alhamdulillahi rabbil alamin la ma bëggoon am naa ko ndax dégg wax bi waaw ah, kañ moo tax ci suuf ngay tàmbalee moo tax baawu basma la ñu tomb ko ci suuf mooy wàccal wàccal pour yéeg soo yéegee ba wàccit fa ngay jéeme fa nga wàccoon ngay dellusiwaat nihaayam mooy bidaayam bidaayam mooy nihaayam dégg nga wax moo tax faatiha am doole moo tax faatiha am doole moo tax nga di ko jàng ci waxtu yi julli yépp naafila yépp nga di ko jàng naafila bu amul faatiha du dem julli gu amul faatiha du dem fatiha mooy jëmmi xaqiqatul muhammadiya ñu bëgg nga mos ci xaqiqa bi moo tax ñu di la ko jàngaloo saa su ne ndax ndax dégg nga ok yi doxul lu ëpp bismillahi rahmani rahim moo tax li Cheikh Seyd tiijaan yi waxo bañ ko laajee turu yàlla bi gaa yi di xëccoo lan la mu ne turi yàlla wi weesuwul allahu boobooy bi ci kaw mu ne waaye am na bu ne ca biir waaye mooy allahu rek kon du lu yomb xaqiqatul muhammadiya luy dox ci àddina bi ak àllaaxira ak lu yàlla am moo koy doxal loo ko génnee du dem kon xam nga noo koy déggee yonent bi ku ko gëm ak ku ko gëmut moo lay tëbb neex naa gëm kon oustaz Abdul Aziz Abdallah Sall sag satise yi rek a fi ne man may xotti rek di dem waaye amul lu nit di doxal ci kaw suuf moo tax bu yi wax yonent bi wax bu jeex ne ko daal sa xam-xam bu rëy lawxu ak xalam li muy rëy rëy lenn la ci sa xam-xam lenn lenn lawxu ci boppam la fa nekk di mbindeef yàlla def ko fa lépp yàlla nga ko fa defee ci xaqiqatul muhammadiya ndax xaqiqa bee ko jiitu amul lu yàlla bind balaa muy bind dara gannaaw nekkan bi moom yàlla lam njëkk a bind mooy xaqiqatul muhammadiya lu muy amalaat nag ci gannaaw gi ci loolu la ko amalee kon mbokk yi Momadou Ndiaye kañ la ñëw kañ Ndiaye kase ñu ngi leen di ziyaara jabel yéen ñëpp ñu leen di ziyaara kon boo gisee nag Seydul Xaaji li ma doon wax neexut a xam moom li jafe woon la indi yombal ko lool soo yéree ay xasidaam rek xam koy yónnante wax naa la léegi bi ci gën a garaaw mooy nuurun ahaata bihi nga delluwaat mu waxaat la ne alhamdulillahi zil ijaabi wal qidami nga ñëwoon ñëwaat mu waxaat la ne wa innahu is araada allahu nashatana abanahu abanahu abaana min nuur yi nuura nabil alami amul lu fi nekk ci kaw na bi di dox lu dul rasulullahi moo koy dox moo tax rasulullahi mooy mooy mooy xaqiqa dëgg-dëgg xaqiqa bi ñi nga xam ne nag dañuy weddi ne baatin amul wala xaqiqa amul ñooñu ñoo ñoo lëjal ñëpp mooy li ma njëkk a wax léegi dafa mel ni kilifa gu mag ku nekkoon Saalum Oustaz Adama dafa dem sëñ Moustapha dinaa bari lu ma koy tudd dafa dem Oustaz Adama mii eh, maam la ci moom saa su ne mu dem fa saa yi fa demee dina ma woo téléphone ne maa ngi nii ci xabru bi bés moo ko li ma dégg mu ne bés bi njëkk a gisee yonent bi yaqazatan daf ko ne tabaxal benn néeg ci sa kër gi nga tuddee ko baytul izzati baytul izzati fa la yàlla denc ay ndënkaaneem lépp luy xam-xam fa la ko yàlla def moo tax daf daan wax ne ku dugg baytil izza fii tey gone doo fi def ñaari at xam nga ñaari at mokkal ci alquran kéemtaan la alxaaji Mansour sa turandoo duma tudd turam ndax gaa ñi léeg amul ñuy bëgg ñuy tudd am na benn taalibeem boo xam ne fu noddee ci àddina bi mu dégg ko fu nodd mën a jibee ci àddina bi mu dégg ko te mu ko amee ci Hayyu Qayyum Alaaji Mansour jox ko ci ndigal moom la doon sikkar ba fu noddee ci àddina bi mu dégg ko moo tax yonent bi rek moo fi nekk te nodd yonent bi la nodd tuutiwul bu ñu la nee fuñ noddee ci àddina mu dégg ko dafa am lu muy def jëmmi nodd mooy jëmmi yéeg lu tax ñu sant la ngay nodd di liqam allahu akbar mooy yéeg laa ilaha illallah mooy yéeg te nodd génnul lool kon ñun ñépp nañ delluwaat tëggaat suñ cofeel ci rasulullah billaahi wal ku jàppul ci moom doo dem ku jàppul ci moom doo dem rawati nag jamono bii ñu toll xaw ma ban jamono bu njëkk weddiwu ma de alaaji Mansour Seydi Jamil nee na alaaji Mansour moo tarbiyee ci turu yàlla mu ne waaye lim ma wax ci turu yàlla ñooñ jamono àtta ñuñ ko moo taxoon mu ne tarbiya yi mag ñi daan tarbiya ak ñi mag ñi ñi daan tarbiyu ci moom ñoom mu ne amatul ñu ne ko lu defee def mu ne daayira yee fi des mu ne képp koo xam ne bëgg nga am la mag ña amoon mu ne jaaral ci daayira yi te def ko ngir yàlla mu ne moo fi des comme tarbiya waaye du lii xew ci daayira yi nag dugg ci daayira di ruuxale dugg ci daayira ñu la nomewul président nga tas daayira ba moo fi ne wala xaaj daayira ba ndax bëgg rek ñu ne la yaay président bi mel ni buñ la ne yaay président daayira bi day tax yaay président de la république daayira kañ ak nim métier boo bokkee ca membre ya moo gën a sedd ngay président wala dafa am loo naa li tafsir gay doon wax ci suñ gàmm gi mu ne Chérif Ibrahima ngi nii li ma koy ormal ormal ormal bu ma toppoon sa un million bi tafsir dimbale ma ma dencal la ko bi naan dimbale ma ma dencal la ko kon am na lu ma ci nar kaay ma dencal la bu jaree jooy am na loo ci nar kaay moon njaay moo du njaay kañ kaay ma dencal nag jarul jooy indi sa cinq mille bi ma dencal la ko jar na may jooy xàcc na la jox ma cinq mille bi ma dencal la ko mooma du njaay kon am na lu ma nar ci cinq mille bi li may wax bi loo fi gis ñu di ko wax comme ndombay tànk jarul xëccoo mooy kaay ma dencal la rek bu dee ilimaan ci yàkk ji kaay ma dencal la la waxtu yu juróom kaay ma dencal la ko bu dee délégué de quartier bi noonu bu dee maire bi noonu bu dee député bi noonu bu dee président de la république noonu bu dee président daayira bi noonu kon nañu góor lu waat ci daayira yi foofu la tarbiya bi nekk waaye nga def ko li wajhillaahi nga def ko li wajhillaahi cotiser ngir yàlla demal daayira ngir yàlla demal gàmmo ngir yàlla moo fi des ci tarbiya la comme la nga koy complété nag moo di di julli ci yonent bi soo jàppee tarixa yemal ci sa tarixa waxuma bu kenn si kër turu yàlla waaye la cay danger moo ëpp fuuf la cay njëriñ fii jamono toll sëñ Souleymane Samb bii xam na li ma yow ndax moom bu dee turu yàlla rek jayuma ko de ndax xam naa ne lim ci xam bari na lool ay wëlis wëlis la ci yor wa tabarakallahu ko xam bari na ko fi jàngale tur mën na la ko jàngal mook Cheikh ñan laa ci xam Cheikh ñan bii ci skat irbam bi yore daara ja moom itam ko moom musiba la moom moom lépp luy jar lépp luy xaatim lépp luy turu yàlla soo ko nee jàngal ma ko bu soobee yàlla di ne kii ndax nit la te du ko xool te boo demee fekk ko fii skat irbam boo moytuwul mën nga ko ba fukki yoon ak juróom doo xam kan kon mbir mi mu ngi ci ñu jox suñ bopp yonent bi billaahi buñ ko mosee rek danañ xam ne yonent bi rek a fi ne nañ jën suñ bopp jox ko yonent bi ñun nag amuñ accès ci yonent bi nañ jaar ci suñuy kilifa pour dem ci yonent bi ku am kilifa war ngaa mën a yegg ci yonent bi ku am war ngaa mën a yegg ci yonent bi amul kilifa nag ba ba ngay dee doo gis sax takkandeeru yonent bi di am ci aba nag fanaaneel naa fi la ba bër sax di am ci aba waaye doo yegg ci yàlla mokkalal alquran mokkalal xadis yu bari baqara bennaa si nga di ko naafila guddi gu jot di nga am tiyaaba waaye doo yegg ci yàlla mooy li ma njëkk a wax léegi ci njëlbeen bi parce que milité woo doo yëg jamais di am tiyaaboo nag mais doo yëg moo tax nga digg Cheikh Sidi Ahmad Tidiane wax wax bu naqaree digg mu ne sama taalibe man Cheikh su tëddee di nelaw tëdd di nelaw la wax de ku dul sama taalibe jóg di jaamu yàlla fajar euh, gannaaw gee ba fajar xar ñu dajale lim jaamu yàlla yépp war ko ko bindal ci karneem mu ne balaañ ko koo bindal bindal ko sama taalibe ba noppi loolu neexul digg xam nga loolu boo ko waxee benn nit ku kon waa nga ma ngeen bal mais il faut la vérité soo ko waxee ku kon con con dafa naan kii dafay exagéré te mën naa la ko indil fii ci àddina bi nga dégg ko bismillah loo indi ci yàlla rek fexeel nga wàccee ko ba nit ñi mën ko dikk parce que weddikat yee bari président de la république kan la Macky Sall ban at la falu 2012 2011 2010 li may wax est-ce que mënoon na ko 2010 ak 2011 ku mas a digg président Macky Sall may la 50 millions ñaata jumaan la tabax ay milliards ñaata kër diine la defalaat réforme ah te lu jiitu rek mille 2011 mënu ko woon waxuma la nag mag moom président Macky Sall waxuma ko doomam ba ñuy wax Amadou Sall xaritool ak moom. dootoo am sens interdit pale ndax oto ba mu dugg boo ca duggee buy dugg pale nii lañ koy defal nga jàll te yaa ngi ci biir oto bi amoo carte d'identité amoo dara waaye moo la yóbbaale géew te yow kese boo bëggoon dem palais say baqata génn ci biti waaye xaritool ak moom léegi mu ne la kaay ñu dem kër ga oto bi buy jub xam xàmmee nañ oto bi xam nañ ka ca ne seen yoon newul ku ca kum ca nekkandooral seen yoon nekku ca ñoom daal nii lañ seq ak oto bi te oto kese la mu jàll la muy lekk ca ngay lekk booy ñibbi mu tooyal sa poos nga dem ba àddina tukki constitution bu Sénégal boo ko tëral président dañ koy fay ba ba muy dee ak njabootam ci ñun ñun con contribuable du noonu lañ koy waxee suñuy yelwaan ah déedéet contribuable lañ koy xaw ma noonu la ñu kay suñuy dërëm ak suñuy ñetti dërëm ci lañ leen di fay président Ablaye Wade ba léegi dañ koy fay président ab du Diouf ba léegi dañ koy fay Senghor biñ mayee wut këram kër ga xottu kese la woon dañ koy garder. Ablaye Wade demal këram dañ koy garder te kenn nekk ko fa point e mais droit la ci constitution bi président de la république ba yowmal am këram ay garde dañ fay ne moom ci boppam fekk deewut dañ koy garde di ko fay di fay njobootam mos nga digg ancien président de la république bu njobootam di dugg Njaga Njaay Njaga Njaay xaraama mos nga dajeeg ñoom ci aéroport yi ñuy rang-rang loo loola leen may loolu moo may loolu Cheikhuna Tidiane yi Cheikhu Ahmadu Tidiane xoolal li Seydina li Serigne Babacar si wax Serigne Cheikh Seydina Cheikh lépp nga xool li Maodo wax rasulullah moo tax maam Hindu dem moo soxna Safiyatu dem dinaa ko profité ngeen may ma baal màq na dinaa ci profité sant gërëm Serigne Moustapha si responsable moral mustarshidina wal mustarshidaati di ko ñaanalit yàlla ndax daf ma defal loo xam ne te man 2011 laa ko gëj a gis Imam Moussa Guèye la yónni ci man fekk daf lu ko jiitu dafa dajale mbooleem responsable yi mu am senegal yépp dajale leen réunion def ak ñoom réunion ba noppi ne leen dama leen di yónni képp ku gis Chérif Ibrahima nang ma ko teralal te ormalal ma ko daal di ne imaam Moussa nag yaay yow yow laay yónnee direct ci moom demal ca moom nga ne ko sa nijaay nee na mu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla te nee na dafa bëgg ngeen gise mu ne ma lii nag bi mu koy wax responsable yépp a ngi toog mu joxoñ ma ne yow Moussa Guèye nag yow laa yónnee teg ca bañ paree mu ne imaam Moussa sa oto na topp ci sama oto ñu jiit la ñu dem ca këram moom imam Moussa ñu añ mu feddaliwaat ko imam Moussa imam Moussa ñëw wax ma ko ne ko un peu partout dans le monde maa ngi jot di yëg li shérif di jëf ci man ak li muy wax ci man ma ne ko man ba ma koy wax it yàlla rek a tax kon mayit maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla kër maamam alaaji Malick daal yàlla bu ko ci kenn ëppale yàlla bu ko kenn ëpp ëppale ci kër maamam Seydul Hadj Malick yàlla bu ko kenn ëppale ci kër maamam Seydul Hadj yàlla bu ko kenn ëppale ci kër maamam Seydul Hadj Malick ndax nit bu la yëgee yéeg rek nga ko mën a delloo te loolu rëy na ci ñun beneen bi mooy gàmmu Tiwaawan bii weesu délégation ba ma fa yebal bañ yegsee ne Chérif Ibrahima moo ñu fi yebal ñoom ñépp ñu yore organisation bi dañ leen ne yéen fi nit ñi di jaar du ngeen fa jaar yéen fi sëñ Moustapha di jaar lañ leen di jaarale mais loolu ku ko mën a fay du Ndiaye nit bu la defalee yiw da nga koy wax boo wéetee ñaanal ko yàlla ñaari baat yu mu wax tudd leen ñaari baat yu wax tudd leen sant ma gërëm ma te man defaluma ko dara kon nag ñu ngi sant ñëpp Mouhamed Wat di gërëm ñëpp. léegi nag nii laa bëgg ñu doxalee ko donte guddi na dama koy ñaan dama koy ñaan rek xaaju Malik laay jox moom xam na li ñu waxante su paree mu jox Oustaz Abdul Aziz Mbay su paree mu jox Muhammad Wat mu joxal ñu ko alxaaj la su xaaj la pare rek ñu jox nag xaj euh, Mansour mu ñaan su fekkee xaju Malik mii am na ci kàddu ndax te dina ko ci am mooy bàyyi Mansour Thiam ngërëm yeeg cant yépp ñu teg ko ci loxoom xam nga li tax ma bëgg mu ñaan moom mii toog man yàlla rek a tax may wax Mansour Diaw bii fu ma ko gis Alaaji Abdulaa gis man billaahi wal kitaabi yàlla rek a tax mu Mohamed Seck yàlla rek a tax may wax moo tax bëgguma sax di ko gis lu bari man fu ma ko gis alaaji Abdou Aziz lay gis Baye Basiru ñang diiru muy ñëw ci man heure buy ñëw moo koy indi moom mii te ku ne xam na Baye Basiru ñang taw Seydi Hadji Malick soxna Faat si moo ko jur te du ko doxe du ko waxe kii bu ñaanee yàlla nangu te mu ngi dimbale jaami yàlla yi kemte lay kàttanam xam naa ci daal kii toog wallahi li jaar ci loxoom dem ci doomu aadama yi su fekkoon ne kalkaral na ko def ko ci boppam ay milliards la yor tey li ma leen di wax ni ci année cinquante yi booba oto yombut moom ci la amoon oto di yóbbu Cheikhul Hadji Abdoul Aziz fu muy dem ci senegal kon jaw ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm mu jël njobootam yépp waaw waaw Seck Mansour ak ni nga fonkee kër Cheikhul Hadji Malick amu ci nag frontière amu ci frontière li ma wax léegi sëñ Moustapha wax ko foofu laay jeexale wax ko si imam Moussa bi ma ne sa nijaay nee na sëñ Moustapha nee na dafa bëgg ngeen gisee ma ne ko ci kaw coobareem su ma wooloo ma wuy ji ko waaye su dee gisee parce que man xam naa sëñ Moustapha mosuma ko gis mu jox ma lu yées un million wala cinq cent mille mosul am te moom laa ubbee sama wax nit bu fekk te 2011 laa ko gëj a gis nit bu fekkee ne boo ko gisee mu jox la dara war nga koo gëj a gis wala déet ma ne ko la ma waxoon Serigne Cheikh way juram loolu laa koy wax te imam Moussa fekkee na ko moom moo fi des ak keneen te kooku du ma ko tudd parce que gars yi léegi da leen di tudd jàmm laay wax sax waaye am na koo xam ne boo yenoon ndox mu ne yaa ngi may poussièral ah, loo ci mën nga bañ a tudd rek te junj ndax booba maag imam Moussa ak kooku ñoo àndoon dama daan def weeru koor bu jot ma jël ay teraanga yóbbul ko Serigne ba bébés Serigne Cheikh ne Baye Omar Samb neel Chérif bu mu dem maag Baye Omar ñu toog mu ne ma sëñ Cheikh nee na li may wax dem leen ngeen laaj imam Moussa gi Baye Omar ne ma Serigne Cheikh ne na ndax dafa bëggoon ngeen gise ma ne ko ne ko su fekkee moom du coobare bëgg may gis na ma may rek jéggal ma ma bañ koo gis parce que damay bañ sama pas-pas yàqu ni ma ko gëmee ak ni ma ko bëggee ak li may daj ci moom ñàkk gee gis a tax damay bañ rek gis ko sama pas-pas wàññeeku ne ko rek ma muñ ba fa gis dàqee kon eh, ñu ngi koy sant jaww Hadj Malick ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu àq ñëpp nag soxna yeetu si Malick si dem ba Bunna si dem ba Xoreja ñu ngi lay ziyaare bu baax ñëpp ñoom Mamadou Ndiaye ca maam As wax nañ sa ngant la waaye ña la fa wuutu rafetal nañ yow xam nañu la sa xarit bu saay-saay ba it maa ngi la koy laaj Mansour Mansour Cissé tubaarkalla ma ne ko àddina tukki na léegi yow laay laaj Mamadou Ndiaye waaw kon nag jabel yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar di yëg ne rek ngeen xam ne géej a gise gi du dara li ma wax démb loolu laay waxaat tey wax ko ca wax ko ca Tiwaawoon Pël loolu laay waxaat tey man mii ngeen xamoon ku ma xamoon alaaji bàcce ngi nii ci ginnaaw aminatu sama doom bi ma mujj maye moo ko dalal alif baa du dëgg ca amookat alaaji bàcc mi toog laaj ko ndax gis na benn changement ci man abdul oustaz abdul aziz suñu sëriñ kër daalik yéen ñii ñëpp loolu sax moo tax du ma sol mbaxana damay bañ a sol mbaxana ñu ne mu ngay woote moo tax duma ma kaalawu damay bañ a kaalawu ñu ne mu ngay woote billaahi wal kitaab yi loolu rek la comme kenn xamu ko ci man su ma ko defee ñu ne ah am na martaba bu bees wala dangay day woote léegi ma faf ko ba parce que nekku ci kaala ak mbaxana newul ci du kii du farata te Thierno Bachir dañ ne ci lu ne nag pour may sol mbaxana ma ne ko may ma rek ba kanam tuuti imaam Lamine Diop sa nijaay yow sa doomu nijaay amul lu mu ci dajut bekk bu mujj bii rek biñ mujj tasee mu ngi ma naan ci jumaa ji biñ julee jumaa ba noppi mu naa xanaa su ma la solalee mbaxana nag doo ko summi ma ne ko ma summi bu Thierno Bachir luy tee du ma summi sa bos bañ a summi xam nga maag moom dañ yabante waaw <laughs> tabaarkàlla kon Mansour Thiam jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm ku baax la foofu laay jeexal la ku yaru la ku disponible la su ko nit ñi fayoon borom fii kenn du fi xëy li mu mën mu ngi ciy teral ñépp léeg-léeg nit baax loo ko te du ko fay wala balaa mu koo fay fekk soxla na ko ba soxlaatu ko boole dërëmam ak dooleem donte danga ko fay lam lay defal bu ca noppee di nga yëg ne kii li nga ko fay jarut lim la defal maa ci jiitu man kon Mansour yal na nga toog ba sa puttentaan yi di def lii nga toog fii ni sa jur wi toogee fii moom it bu boobaa mu nekk ca biir kër ga tële taxut de yaramu sutaate taxut màggat doo ngay tax bu boobaa ñu toog ba waxtu wi di jaar waajee jeex ñu dem jëli ko ndànk ne tegal ko fii siis mu ñëw toog ku ne di xëcc mbubb mi maam nag defal nii defal na li yal na ko yàlla def te ñun ñëpp ñu fekkee ko ñun ñëpp ñu fekkee ko ñun ñëpp ñu fekkee ko balaa booba loo bëgg ci entreprise bi nga bëgg ko ak say mbokk yàlla na la yàlla yóbbul sut xel comme base yàlla na la yàlla jox lu sut xel comme bâche yal na la yàlla jox lu su xel comme bâche xam nga boo gisee ma ne xel comme bâche xel comme bâche am nañ lu rëy di am nañ lu rëy di waaw kon nag yàlla ma leen ko jox mooy joxe ba tey yal na la yàlla jox lu ko ndax su la ko yàlla joxee wóor na ma wóor yàlla am na ñoo xam ne dootuñu sonn waaw wax naa ko ko keroog wax ko ci suñu gàmm ko Alioune Sall monsieur le maire directeur président caisse et consignation at yi yëpp ñaari at yële yëpp day def at bu jot bu balaa gàmmoo gi di ñëw mu ne ma dama bëggoon nga bàyyi ma ma baasal la sa bâche yi mu ne ko yenn façon bâche nga am mu ma ah, yooyu ñuy def rek yu six millions yi ah buñ ko mënoon def espèce de <laughs> damay tooñanteeg moom ma ne ko buñ ko mënoon def espèce de te jox ma ko ma dugal ko fii moo ma gënal jox ko jaami yàlla yi waaye moom xam na man xam naa moom Alioune Sall ndax ñoom it dañ leen koy jox du lu ñuy fay ñoom dañ leen koy jox ma ne ko bàyyi ma rek ma def lanteeg Mansour xam mu ne ma lu tax te ñu bari bu ma leen ko waxee dañ koy def ma ne ko waaw sa maire gi day jeex te Mansour Thiam du jeex ma ne ko ker bu mairie bi jeexee dootoo ko mën bu boobaa danga may delloowaat gannaaw dañ naan xoolal ñaw baasu 6 millions yi la doon baas de mënatu ko ma ne ko bàyyi ma ci samp yi rek ma ne ko bu Mansour yokkoo rek ma yokk ànd ak moom bàyyi ma rek boobu moom ma gën moo gën a sedd ci sama yaram nit dayam kóllëre Mansour ku baax nga Mansour ku yaru nga Mansour ku jub la Mansour ku dëggu la nit nag li mu baax la yépp soo ko ko waxee ci benn jotaay li Serigne Cheikh wax mu jóg mu dagg yow kon Mansour ñu ngi lay sant daal di la gërëm yaa ñi nga bokkal lii rawati Mansour sekk boobu Seydina Samb Aline Badara duma lim ñëpp seen équipe bi ba ci maam njaay ak Sidi Ahmed bii toog nee naa keroog maa ngi leen di tooñ ma ne Sidi Ahmed maam Ndiaye Mansour jàmm waroon naa mën a yoot làqatu ci gannaaw buntu déglu seen naanum attaaya ndax ku gën a neex moromam nga ne kii léeg bu ma ko wooyee xam nga man ay une heure du matin laay woote laaj ko Mansour ay une heure du matin deux heures du matin heure yooyu lay taal portable bi di woote nag su ma ko woowee di ko sant mbir dama naan ko ana ana Mansour Thiam su ma nee Mansour Thiam rek moom xam nga ne soxna si laa yow moom soxna si laa ko tuddee kon nit ku baax la ndax koo ñemee jël sa téléphone woo ko une heure matin xam nga ne ñeme nga ko waaw ndax cofeel bu mu am ci ñun moo tax ñu sañ loolu ci moom ndax am na heure yooyu du heure woote waaye nit ku baax la doo ko woo ba mu ne sonn na Cerno Bachir daf koy gërëm te gisu ko ba fi ma toog di wax ndax bâche yi ca Louga moo koy bâche kon man Mansour jërëjëf Cerno Bachir ak lay gërëm mu ngi lay ñaanal yàlla fu mu toll mu ngi lay gërëm mu ngi lay ñaanal yàlla te Cerno Bachir ku mu bàyyi xel yàlla bàyyi la xel ndax alaaj yi Saïdu Nuuru moo ko waxoon alaaj Abdou Aziz wax ko ñépp dégg mu ne ko Bachiru xaw ma loo bëggul loo buggul bu ko waxati mukk mu ne ko lu lu fanaan ci sa xol bi balaa bër di sëkk yàlla faj ko bari na lu ngeen ma dégg ma jël ci engagement wax ko balaa ma ko wax damay tëjoog moom ci néeg ba noppi ne ko góor gi nangam ak nangam loo ci xam mu ne ma nangam ma ne ko mu génnee fen ko bu ma génnee nag ne ko teel la maa rajax kon jërëjëf ñu jël kàddu gi jox ko Xaaju jërëjëf Hadj Malick cees la jóge waaw ajjuma bi ma yii di dal maag moo ma àndoon te yëgu ko sax ndax dof mooy def lu la dal ña nga àndal yëg ko yàlla xam na ko Cheikhul Hadj Abdou Aziz dugg na ci oto fii ci Pout jënd màndarin clémentine ba pare kii xam na li may wax Mansour Diaw bii ni mu téyee ci ceti oto bi ndekk tëjaale nañ port bi mu kepp baaraam bi baaraam baa ngi nàcc ba tiwaawoon rus na leen a wax kepp ngeen ma biñ demee bay ubbi oto bi lañ gis ne baaram bi kepp nañ ko mu ngi dagg di nàcc te waxut ñu ne ko góor gi lii nag mu ne ah jàmbata baaxut gor du jàmbat as gor du jàmbat as gor du jàmbat loolu rek la ñun yooyu la ñuy jéem a roy parce que nit ki tamit bu dee sa kilifa da koy roy billaahi wal kitaabi haj ma silla li may wax du yàlla tax may wax de ajjuma sama soxna bële foogoon na ne dee na man ci sama bopp boobu xaw ma sax fu ma ne dama génn ci duus bi rek daanu xam te ci ajjuma boobu laa ko jëlee bi may ñibbisi mag kii ak kii ñoo am fii ma toog nii maa ngi mel ni ku sañ waaye bu balaa ma fay jóg ñépp dana ñibbi ba pare ma door a jóg loolu may sant yàlla waaw parce que ñi saxaaba yi dee ci front bi da leen gën Seydul Hadji Malick lim daj danga waaw kon nag mbokk yi daal maa ngi leen di sant di leen gërëm Mansour waaw mu ne dafa am benn waay mu ngi ci tànt bi mu ne dafa dégg sama waxtaan muy wax may wax ci maam Cheikh Al Hadj Omar ma ne maam Cheikh Omar Fuuti yu deewul mu ngi dund ma Inde la nekk fi muy jaayee sax xam naa ko mu ne mu toog ak benn kilifa kilifa gi ne ko maam Cheikh Omar Fuuti yu dafa faatu dañ koo jam ci faar ñu suul ko maasale bàmmeel ba tubaab bi ñëw ñu bañ tubaab bi xam fi bàmmeel bi ne ñu ne booba tubaab bi bopp bi la soxla woon mu ne maam seexu Omar nii la jaar mu ne looloo tax ñu ne dafa disparu mu ne lëndëmte googu mu bëgg ci ay leer leen dafa dajeeg noonum Cheikhul Haaj rek dafa dajeeg ku kontar Cheikhu Hadj Omar kooku bu dee yaa ngi bi àndal ak moom ñëw sama kër ma wan la Cheikh Omar moo gën a gaaw may ma rek billaahi wal waaye lu mu ci góobee gar ko waaw may ma mu ne Mansour jaw nee na mu ne waxal kooku ne ko waaw kañ foofu laa jëm si woon alxaaji abdul aziz dabbaax radiallahu taala anhu ànd naag alxaaji carno saidu nuuru taal ñu jógee ndakaaru wala ñu jóge medina jëm dakaar mu ne ko abdu ñoom ñaar rekk ci oto bi fële toog solul yére su say yére solal ko jaaral ca digg ba tubéyam la ko waxoon mu summi ko waaw waaw loolu la rek pour nit ñi xam biñ delloo ba yegg ci kër gi ñu abal ko mbubb mu sol ko góor gi di waxtaan ak moom ne ko Abdou ki nga abal mbub mi xam nga ko mu ne ko mooy Cheikh Omar Fouti beneen bi xam nga mën nañ ne Thierno Seydou Nourou dem na xaj ma si dama wax bi gën a garaaw badukaan ji xanaa xam ngeen ko ku jur badukaan ji dem leen ci moom ngeen laaj ko lii may wax dëgg la wala du dëgg di ko wax boo jëlee kàddu badukaan ji alaajab doo toog ci jàkk saw woo ko mu ñëw mu jox ko enveloppe def ci xaalis ne ko demal ma dëkk sàngam ci Fuuta palaas sàngam boo fa toogee ab diir dina yor di nga gis ko am ay gàtt di sàmm bu ñëwee nga joxal ma ko enveloppe bii ba dul dem fi ko góor gi wax diir bi mu ko wax bi mu jotee genn góor ñëw di sàmm ay xar bi ne ko sama papa nee na moo la ko jox dal di ñibbisi góor gi ne ko Badou xam nga ci ku ma la yónneewu mu ne ko dee mu ne ko sa maam Cheikh Oumar Foutiyou mu ne ko papa lu tax waxoo ma ko mu ne ko bu ma la ko waxoon doo ko gis moo tax ku dee lu muy doyee enveloppe Seexuna Tijaani li muy baax baax di xatmul awliya soo ko gisoon nii yaqazatan nii nii nga toog mu toog soo ko joxee guro du yëy soo ko joxee mbiskit du lekk soo tegee ceeb du dugal loxoom ndax mu ngi ci alamul barzaq rasulullahi moo gën ñépp lu waaye am ci barkeem nga ko amee soo ko gisoon yaqazatan boo ko tibbee jox ko ceeb du lekk boo ko joxee tàndarma du lekk boo ko joxee ndox du naan moom nag mën na laa jox ndax mu ngi ci alamul barzaq ku dee du lekk te Cheikh Umar boo bu ñu ñëwee gànna la moo leen njëkk a wax toggal nangam Babacar Njaay Tiwaawan bii la nekkoon ñu bari xam nañ ko nijaayam bu bokk ak yaayam ak bàyyi at bu jot Cheikh Umar daf ko daan gane si fii ci Saalum hmm? waaw kon fi ma ciy jeexale Mansour dafa am la tax ma ne mu nga Inde ngeen mbaal ma Inde la dëkk alwaar la juddoo waaye intiqaal dafa toxu xaal bi mu nekk moo tax mu toxu te Inde mooy cosaan la àddina moo tax mu dëkk fa waaye tour du monde lay def chaque jour bés bu yàlla sakk dina wër àddina bi wërngal këpp door a delluwaat bi muy am ci tal tayul ardi boobu lay jógee euh, màkkatal mukarram di ñibbis diggante màkk ak Sénégal 15 minutes la ko Cheikh Omar di def parce que dafa am tayul ardi mën naa la wax ay niti niti nit Thierno Bachirou war na ma Cheikh Omar yaqazatan moo tax moom ne la mën naa koo wone Cheikh Umar Cerno Cheikh Umar doomam dem nañ fii ziyaara fii eh, fi Cheikh Umar demoon ci Casamance nu mu tuddati dëkk bële ci Casamance te ñu ne Cheikh Umar jaar na fa eh, Cap Skirring ca jullikaay ba dem leen ngeen laaj Cheikh Umar bu Cerno Cheikh Cerno Cheikh bu Cerno Bachiru moom ak Cheikh Oumar Anne bu kuddu directeur u kuddu ñoo àndoon ak yeneen ñaar parce que oto yi dañ fees ñu ne leen dem leen ñun ñu dox Cheikh Oumar fee ñu leen yàqazatal ñu waxtaan ak ñoom ba yegg si ci kër gi Cheikh Thierno Cheikh moo kii Cheikh Oumar ñu yegg si ci kër gi nuyu Thierno Bachir rek mu ne leen mbaa nuyul ngeen ma sama maam Cheikh Oumar man li may wax kay ñoom ñëpp a ngi dund waaw yonent bi kay moom ñi koy gis a ngi koy gis yàqasatan ñi gis yonent bi ñu ngi koy gis yàqasatan si may may ma waaw kay may ma may ma in bi ne waaw kay jeex na Maodo Serigne Maodo si bokk na ci ñi gis rasulullahi yaqazatan moo ko wéy mais ñi nekk barzaq gis leen du dara ci sa pas-pas la aju ak sa yow sa sa sa xol sa diggante ak sa borom waaye du kiiraay du kiiraay Cheikh Omar Fouti yu xayyun laa yamut ñi bokk ci ñiy dund te duñ dee ci la bokk dafa am ñu yàlla wax ne yawma yunfaxu fi suuri fa saxiqa man fi samawati wa man fi l ardi illa man shaa allahu beneen bi mu ne illa ma shaa allahu ñaar yépp la yàlla indi man shaa allahu ak ma shaa allahu wali yu xadir lu tax nga nangul ko ko te bañal ko Cheikh Umar wali yu xadir deewul te yonent bee ko loolu dinaa ci def waxtaan spécial incha allah te bu déwénee sax nañ ko ko def dégg nga bu déwénee nañ ko ko def moom moomu na ñëw toog moom moomu na bu boobaa na ñëw toog bu ñibbee dina gis lu mësul gis dégg nga boobaa na ñëw toog bu ñibbee guddi gim njëkk a tëdd dana gis lu mës a gis Cheikh Omar a ngi fii Cheikhuna Tijaani junj na ko mahdi yu bi tiijaan yi di wax ne na ngeen bëgg seen mbokkum taalibe tiijaan la dina jël tariqa bi mahdi yu boobu bésu altine lay doon dimisqa lay doon ca jumaa ja lay doon moo ko waliyu Xadir ak Cheikh Umar Cheikh Umar moo koy jox tariqa bi à suivre ba déwén ma wax leen lu tax yal na yàlla fay la dafa mel ni sax waxtaan wi shérif ci mujjantal la ko waxtaan mais waxtaanu ko ci ndoorteel waxtaanam bu dee comprendre ngeen ngi soog a waxtaanee nag jëfi xaqiqatul muhammadiya ci fin bi parce que sujet bu bu sensible bu doon sax bidaa day am dama naan ku ko def mawdu dañ naan la bidaa nga def man Mansour bi mu ñëwee man wax ma ko defe naa ni matagul semaine ñëw na Thiès sama kër parce que nit it kenn du ko xeebal yëfam tuul sama oto carburant bi ci nekk fu mat ndakaaru ndakaaru wër nañ ko juróom-ñaari yoon fuñ daw ba romb ko defe ni day taxaw mu continuer ba yàgg Souleymane ma ne ko da ngaa xam fi sa jëm mu ne ma léegi daal nañ ko bàyyi ci loxol yàlla dañoo wër a wër a wër a wër a ba tas doog a dem nag fi ñu doon dem ma ne ko waa sa waay moom fi mu doon jaar yi pour lan ñoo ngi toppante rek moo tax bu bu feebaree ma ne wax dëgg yàlla su ñàkk ko daal démb noonu moom ma nga ca gàmmu ga maa ngi ndakaaru te terewul bërki démb ñibbi naa Cees tey ci suba ñëw naa dakaar jël si sama goro parce que yëg na ko moom yóbbu ko Cees mu jaale ji ma indiwaat ko sooga mën a ñëw fii teew si parce que Mansour it mbir mi rëy na ci moom de moo tax li Baye Mansour def toog bëgg a ñaan njortu naa ni sax mooy garanti jotaay sujet bii nag ñu fi doon waxtaane mawduu tey bi dëgg-dëgg ñépp amuñu faculté d'écoute bu ko mën a déglu maanaam suñu jotaay yi ñu yooyu parce que shérif da doon def taarif ci commencement bi parce que pour pour pour traité sujet il faut nga def introduction boo xam da ngay def définition ñu xam mawdu bi nga def taarif bi ñu xam li ngay wax lan la banaana laa bëgg a waxtaane walla mango laa bëgg a waxtaane da ngay wax luy mango ci loolu la démarré bëgga a tëj faf ñu dugal ko ci leneen mu waxtaane nag jëf yu xaqiqatul muhammadiya bi feeñal parce que bu ngeen seetloo tàmbali bi tudd na nafsu muhammad tudd na ruuxu muhammad tudd na xalbul muhammad tudd na jismu muhammad te yi ñeent moom jeex na fa la lépp tënku moo tax Mawlana Cheikhul Xaaj Malik moom bi muy wax sax ci yonent bi dafa dem ba yàgg mu wax bayit boo xam dane fang mi ngi ci miim ya ay bayit yu bari nga ciy dab waxtaanewul dara xaqiqatul muhammad ya lay waxtaane wa xalqul axlaaqi bu leen woy bu leen woy bëri na uyunul arwaaxi min nuuril ba bajasat fa innahu jinsul ala al asliya la doon wane mais boo ko xamee ba pare dafa am jëf yoo xam ni ku xamul xaqiqatul muhammadiya mënu ko dinaa nettali ñaar rek joxe ndax dama gis ci carte yi man suur bi mu ko defee sax la wax naa ko ne ko nag waroo ko woon def mu ne ma shérif ma ko sant mais li tax njëkkumaa waxtaan man maa ko wax maa ne ko shérif mu ne ma ne ko nañu daje dama ne woon dama lay jiitu waaye nañu daje rek ñu duggandoo te buñ demee waxtaanal su fa keneen nekkee def synthèse su fa keneen nekkul ma def synthèse waxtaan bi benn jotaay la mbaaxaan ne ci yow rek ba nga def li nga def taman Chérif masumaa woone ma gunge ma programme musul am musul am toog nii rek ne ma kaa kaa wéttali ma déedéet masil la même inauguration jawiya bi dama cee tombe bi ma ko waxee ne ko diw ak diw dañ fay ñëw ndax mën nañoo gisee ñu waxtaan parce que am na lu ñu war a waxtaan daf ne ça fait l'occasion damay ubbi wàllu zawle bi suba ma ne ko lu tax waxoo ma ko mu ne ma yow yaa ngi ci sa yittey bopp bu farata jotul nekkal ci sa yitte ma nekk sama yitte maanaam moom il est très difficile pour comprendre ko c'est nit ñi nag bu ñu la séenee yàlla boole laat nit rek ngeen ànd rek kenn ku ne ya na mu koy jàngat shérif nee naa maa ngi ñëw ci ñaar yi ma bëgg a wax de mën na gàkkloo nit léeg lekk am na benn nit bu ma bu ma song song yu metti ci shérif ma ne ko waaw lu xew mu ne ma ngay nangam muqaddam nangam wax wax ba yeggal ma noppee rek xam ma nag fu mu dajeeg sa waay xam nga sa waaye du milliardaire ci xaalis mais milliardaire ci xol la non waxin la dama ne milliardaire u xaalis foorul milliardaire u xol a foor Chérif xam naa am lu mu ko defal lu rëy mu ñëw daanu xaal ci man ma ne ko waaw du yow yaa doon wax nangam ak nangam ak nangam mu ne ma boobu xaw moon kuy Chérif Ibrahim Aïdara as gor la su baax ku nawlanteeg ñi mu nekkal man ku ma cof ma rëcc ku ma yëgul ma dem shérif bu ngeen di ànd yow yaayam kersa lu mu yor bokk kooku yow loo yor yoonam newu ci te xalaat bu mu am pour nga jëriñu mu jox la ko loolu moo tax boo amee yitteew ñu jóg ànd ak yow wàll wàññiwuñu dara te dofuñu nag de xam nañ kiy dem ak ki demul shérif ma nga ca yoon wa ku ye ku amul wusuul mënoo nekk wasiila da ngay am wusuul da àgg yow ba pare waxuma nag àgg ci lépp de dangay àgg ci lenn soo àggee ci lenn ba pare soog a mën a yóbbu nit ca loola balaa may wax li ma bëgg a wax kàddu ngërëm loolu ak kàddu canti lay jëkk ci yow yal na yàlla guddal sa fan yàlla dëgëral sa taxawaay billaahi wallaahi tallaahi waxuma tiwaawoon waxuma tuubaa waxuma njaasaan waxuma cenaba bu ñépp fexe bu ñëpp fexewoon woon ba mel ni yow rekk mën nañu sax bañ a am benn benn benn jaaruwaay parce que defaru rek lañ bëgg ci nit ki tarixa bi li ko tax a ñëw defare moo tax Cheikh na Tiijaan ne ku ngeen jox tarixa bi bàyyi leen ma defar ko ndax ni mu war a mel maa koy tëgg parce que ku ne maa xam ni nga war a defaroo maa lay forger ba nga defaru su ma la bàyyee ki la jox tarixa mën naa juum mais bu matee xalifa cheikh nag ma jox ko ndigal mu defar la nit ku baax nga yal na yàlla dolli sa yii di la dab yépp du dara ci la bokk daw ba yàgg sonn ñëwul dara yal na yàlla guddal fan yi alxaqiqatul muhammadiya ñaar laay wax benn day jëf gis naa ku ko jëf Ousmane Abdul Aziz lii may wax ci Kaffrine la xewee te nag kaay ma yëgal la de xaqiqatul muhammadiya ñaara mën a am benn dangay bokk ci tarixa parce que ñépp ngi dund al xaqiqatu muhammadiya même ki ko xamul même diriyanke bi bi gëre xeesal ba weex sol koketam mbaa mu sol jiinam mi ngi dund ci xaqiqatul muhammadiya yëgu ko nag parce que heure ku noyyiwul am na fi ku masta nooyu ku dul nooyu am na fi te yonent bi mooy aynu rahmati rabbaniyat jëmmi yërmande gi indi ngelaw li ñu noyee yonent bi la kon ku dundul xaqiqatul muhammadiya new fi ñaara fi ne nag mooy ku ko xam ak ku ko xamul mais pour nga mën koo jëriñoo parce que alxaqiqatu rek dafa jafe pour xam ko buñ ci idaafee muhammadiya nag dafa gën a garaaw parce que xaqiqatul muhammadiya du baatin de leer la nuurun moom la shérif wax man ixtibaas laa def rek pour tëj du baatin de déedéet nuurun la leer la moo tax nga mën ko gis te doo ko xam lii may bëgg a wax pour nga mën koo jëriñoo nag dangay am garanti garanti bi mooy lan mooy faw nga bokk ci tariqa cheikhuna ahmad tidiane soo ci bokkul xalifa cheikh da lay reconnaître moo tax lu jiitu cheikhuna tidiane ku ñu tudde mouhamadul buseyri daa fees dell ci xam xaqiqatul muhammadiya cheikh ñëw garanti ko war ko wone nag war ko wone war a wone ni maa ko garanti muqaddam yi di ñëw parce que lan mooy maa ko garanti mooy war na am na ku ko war a feeñal moom Muhammadul Busiri te ci xeetu yonent bi lay bokk bokk ci tariixa na Tijaan looloo waral ngeen seen bi Alaaji Maalik di di gàmmu dem rocc ji burdu indi ko nit ñi naan Maodo day nëbbu boppam kër yàlla dafa am nëbbu moo Maodo weesu na fu muy nëbbee boppam ak fu muy feeñal yow da ngay dox automatiquement électriquement ngay dox mais yonent bee ko sant Cheikhuna Tidiane Cheikhuna Tidiane localisé Cheikh Al Hadj Malick li tax mu jël téere bi te bokkuñu tarixa xam gu Muhammadul Bushayri xam alxaqiqatu muhammadiya ñu garantil ko ci tarixa bi lii may bëgg a wax nag ku ko mënta xam mënoo xam ci xaqiqatul muhammad yi xam nga nu mel ngeen baal ma baat bi may bëgg a wax ñaari jigéen ñëw kenn ki dañ koo biiral biiral mooy amul jëkkër bokk keneen ki dañ koo biiral mais dafa am jëkkër ñoom ñaar ñépp ñu ñëw taxaw te xamoo leen mësil la la xoolal kan kan lañ ci ëmbal est-ce que mën nga koo xam non damay laaj sérieusement rek est-ce que loolu mën nga koo xam ku mënula ràññee lool loolu dañ koy xam loolu dañ koy xam am na ñoo xam bu ñu nee ko jàkk ne la kii lañu ñu biiral kii moo am jëkkër parce que xaqiqatul muhammadiya leer la leer ngay wax ak yow maam Khalifa Niass li may wax ci Kaffrine la xewee ñaari nit a am doom xam nga rewle léegi la jaxasoo doom wàññeeku mais Baye suur bu njëkk jaxasoo doom ci hôpital amoon na fa ñu daan rewlee du hôpital kër la rekk ñu rewle ñaari jigéen yi kuy am doom fekk doom ji génnul taloo dara ki leen doon dooñ di leen defar di di di rewle bi mu yeggalee doom yi jaxasoo kii ne ko man doom ju góor laa jur kii ne ko yaa jur bu jigéen bi maa jur bu góor bi li may wax réalité la du anecdote coow li juddu Saalum di toj kafrin yépp yëngatu ñu ne xalaat benn rek la de nañu dem ci xalifatul xaaj Muhammad Mawlaana maam xalifa Ñas ñu départ ndax ay taalibeem lañu ñu départ ñëw moo tax wax naa ko gaa yi nee naa leen taalibe tiijaan bu ayibal maam Abdoulaye Niass wala maam xalifa même bu dee alaaji Maalik liggéey sa sëriñ alaaji doo la joxoon tariixa bi dog nga te ku maam Khalifa dog kenn dootu la jog ku alaaji Abdoulaye Niass dog kenn dootu la jog parce que Khalifa na Tiijaan ñu ñëw mbooloo mi àndandoog ñoom pour wan la jëfi xaqiqatul muhammadiya bi ñu yegsee ba toog ñi ànd ak ki ne moo jur ko góor kaa ngi nii ñi ànd ak ki ne moo jur ko jigéen kaa ngi nii coow li daal ñépp a ngi xaar lu mu am xalifa di wax xam nga bi mu yegsee lu mu leen wax indi leen ku nekk nen ñu dem indi nen mu ne toj leen ko ñu toj ko mu ne dindi leen li ci biir luy des du xott bi mu jël ñaari xottu nen yi ne jigéen ji jëlal ne beneen jigéen bi jëlal ne leen làqu leen ci ginnaaw nekk ngeen dem ci ginnaaw ngeen pàccal seen ween soow mi ngeen war a nàmpale paccal leen ko ngeen def ko ci biir xottu nen bi ba mu digg ngeen indil ma ko ñu jàdd ci ruq def loolu del si indil ko ko mu ne indi leen balance ñu indi balance mu teg ñaari nen yi benn bi wat mu ne ana sotti woon bii ñu ne ko diwa sotti bii mu ne ko yaa jur doom ju góor ji ana ki defoon bii mu ne ko mu ne ko yaa moom doom ji jigéen ji borom lawal yeeg borom cheikh xalil yeeg ñépp borom risaale yeeg misbaax song ko ne ko lii kenn dabu ko ci lawal ak saan foo ko jëlee mu ne bi àtte bi amee te ñu ñëw la Cheikhu na tiijaan ñëw wax ma ne ma nii nga koy àtte ku bëgg a xam dara ci xaqiqatul muhammadiya da dangay bokk ci tarixa cheikh mbaa tarixa cheikh garanti la moo tax wax naa dara barki dem Mansour ne ma Souleymane ne ma bu ko waxati ma ne ko danaa ko waxaat dégg naa benn xale buy wax ne ñoo ñu wékk seen bopp ab naar baat yu yaradiku yooyu ma ne ko mais naar boobu coach la bu bëgg sélectionner ay joueurs yu mën mu yegg si gis gardien de but bu mel ni Cheikh El Hadji Oumar mu def ko professionnel jël ku mel ni maam Abdoulaye Niass def ko latéral jël ku mel ni Amary Ndack Seck def ko latéral gauche xool kuy toj caax yi mu ne ko Alaaji Malick Sénégal li fi riir Maodo ko fi def ma nañ bàyyi caaxaan yi nañ bàyyi caaxaan yi bàyyi leen caaxaan bàyyi leen caaxaan bàyyi leen caaxaan ah dégg leen li dégg leen li yaa majmaal allama alhuda jërëjëf allah laaj ma si la dañ bàyyi caaxaan waay